lay xaar noonu bii waali bii la bëgg léegi ñëwal ñu enchaîner yi ci ko su waali kaay comme bii ngay xaar nañ ko commencé ñu xaar bële ba ci kanam waaye looy wax ci bi 5 millions. je disais comme que Wally da koo bëgg nañu yéegal affaire bi nañ ko yéegal mais lui c'est une grande star mais nañ ko yéegal nañ yéegal affaire bi Abass waaw affaire bi léegi Sénégal Gambie la Sénégal Gambie la ñaata ñaata 5 millions 200. waaye ñu ne yaa ko taal

adjugé à 7 millions pour Wally Merci beaucoup de l'applaudir très très fort. Très beau geste pour une deuxième paire de lunettes Euh, vente de dañu koy continuer. baax hein?

mais bu won lol sax ko dañ koy gëna a wa ñu ko ndaw maa ngi koy gëna bu baax a ba ba baax wali sek ma ngi lay gërëm yenn saa dama gis wali après mon fiir je dis lu sorti am borom parce que ñun bi koy bëgg période bu metti la woon bobu ciom sek ñu dund démb damay netali ci télé bi dafa am bis ni yalwan ak meeru koñ bi ñëw kër coon di ko gërëm coon xamul lu tax ñu koy gërëm ndekete Wally Seck mooy def saa yu coon jëndee ravitaillement mu jël ceeb yi dem jox ko yalwaankat yi Wally boo ko nee say rafet na sax dafay foog daf la ko war a may c'est-à-dire booy wër nit ku généreux jàppal Wally Seck moo tax ndam yi mu am yëpp xolam la yàlla boole ma ak mom ñu cheminendoo ci lu bari premier anniversaire Wally Seck je m'en rappelle dama melone ni may teuk ay mbubu yu bari la yobale suma duggé ci loge ba changé yi gàtt bi public bi yëpp dañuy yuuxoondoo maa la yàgg bëgg yàlla na suñu borom taxawu la ba waxuma disque d'or mais Grammy Awards yi yusu am yàlla na ko am les articles seront disponibles sur www.nomadblue.com